madame le gouverneur ñu ñëw ci turu sëñ Moustapha ak Baye Ahmadou Makhtar waaye ci ndigal ak njiitul sëñ Touba Cheikh Ahmadou Mountakha ndax bis bi bisam la moo koy jiite moo ci joxe ndigal lépp lu ñuy def ci yoon wi moom lañ koy defal ndax mooy sëñ Touba lu sëñ Touba bàyyi moo ko yilif ku mu bàyyi moo la yilif kon ñu lay nuyu turam te di ko ñaan mu yàgg fi loolu te di nuyu monsieur le préfet Aliou Seynou Mbaye moom itam di suñu xarit bu yàgg ñu sant yàlla bi ñu ko indee ci suñu wet ñu ànd liggéey bi nuyu Ahmadou Cheikhou lii mooy su préfet di leen ñaanal yàlla fas yéene ànd ak ñoom ni ñu ko sant jàppale leen ci liggéey bi ndax ñun ak yéen ñoo bokk njaboot gi ñoo bokk liggéey bi te rafetal ngeen bu baax kon ñi ngi leen di dalal di leen ñaan yàlla may leen ndam ak tawféex ci liggéey bi di nuyu mon commandant ki nga xam ne moo dem santé compagnie nord ak mboolem chef de service yëpp muy sapeur-pompier service d'hygiène hydraulique Sénélec santé ONAS Eaux et ak ñi ñëpp ñu nga xam ñi ngi fi bëgguma lim di bàyyi kenn di yeesal ay cant ak i ngërëm ci ñoom madame le gouverneur wax dëgg yàlla jàpp naa ne bii mooy fanweeri at ak benn ñu nekk ci Magalu Mbàkke yow di jiite organisation bi te ko yokk xam nga ku wàññeeku xam nga waaye at mu ñëw gën a yomb ci ñun ndax yàlla ak seen taxawaay ak chef de service régionaux yi ak départementaux yi ak locaux yi ndax kenn ku nekk ci ñoom dafay mel ni bis bis bopp da ko def muy bisu boppam ba tax na dañ ci feeñal seen yéene boo déggee waxee ni sax yëpp daf ciy feeñ sëñ Fall lépp da cay feeñ kon maa ngi lay seereel ci turu sëñ Moustapha ak njaboot gi sant bu ñu sant ci taxawaay bi nga xam ni ñu ngi koy taxaw ci wetu njabootu Cheikh Mouhamadou Bara di ko taxaw ci njabootu ci wetu kilifa yi diine yi nga xam ñu ngi ciy des Louga loolu lépp nag su amee seeni kilifa ñu leen dooleel mbaa ñu jox leen digal bu ngeen mën koo def. kon sëñ Moustapha mi ngi yóbbante ay ñaan ci autorités yi nga xam ñoom ñëpp ñu bees lañ muy ministère de l'intérieur jaare ko ci moom premier ministre Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñaanal leen yàlla suñu borom may leen ndam ba yan bii ñu leen yan yaakaar ko ci ñoom yaakaar ji bañ a tas bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam di bëgg a am tuuti lu ma leeral ci wàll jëm ci wàllu gendarmerie maanaam barrière yi nga xam ne moom lañu sàkk woon dañ daan def dañ daan wax naan yéen ñi yor walla sa sécurité daanaka duñ leen digal ndax loolu ngeen di jàng dañ leen bàyyi seen bopp ndax xam ngeen li war xam ngeen ni ngeen sécuriser nit ñi moo tax daanaka détails yu bari duñu ci bëgg a idrolik hydraulique itam wadd li ñuy soxla mooy waxoon nañ ko keroog dañoo bëggoon su ngeen mënee yabal koo xam ni day bokk ci yéen ñëw ci suñu wet ñu di ñu déglu dina am solo lool ndax daaw am na ay camions yu ñëw man ma jot ci ñoom sax dafa mujj jafe ci man te loolu yaakaar naa warut sa warut sa warut sa jafe ma bëggoon su fa amee ñu fa man a nekk nga xam dañuy ànd ak ñoom di liggéey du wàññi dara. Senelec itam dañoo am extension bu ñu woon am na ñetti at boobaag léegi 3 kilomètres la ni ko monsieur le maire waxee nga xam ni dañ doon bëgg kër yu wees yi fa nekk courant bi mën a àgg ci ñoom loolu daal mooy li nga xam ni noté woon naa ko ci fànn yi. bëggan ko ci dolli euh, ñaareel ba mooy Sonatel jàkk moom woo na ma ak ku ñuy wax Jaxate ni li ñu defoon daaw lépp incha allah fas nañ ko yéenee yokk ñoom sax ñooy soññee far ci bis bi kon loolu mooy li nga xam ni bëggoon naa ko ci leeral ci bis bi nga xam ni bis bu màgg la ni ma ko waxee ci njàlbeen di bisu faj aajo di bisu tawféex di bisu ndimbal ñu ciy fàttaliku gane àddina Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Cheikh Mouhamadul Amin Bara nga xam ne mooy ñetteelu doomu Cheikhul Khadim feeñe ci Touba mel moom dong itam moo feeñe ci njabootu sëriñ bi góor ñi ci Touba foofu ñu denc sëriñ bi foofu la gane àddina muy nit koo xam ni suñu boroom dafa am lu mu dëxëñ ci moom nga xam ni sëriñ bi secret yëpp yu baatin yi ci Cheikh Mouhamadul Bara la ko denc ci la ko dëxiñ muy mbir moo xam ni lu doy waar kere bi mu feeñee ci àddina da koo jël foofu kër sëñ Tuubaa la ci kër gi la bokkoon di dox diggante penk ak sow naan ki nga xam ni ñi bëgg na àgg ci seen borom li leen tënkoon bu mu ñëw àgg ki dagg ki dagg jéng yooyu agsi na ànd ak mbégte moo xam ne ku xool kanamam da ngay gis ni da ngay gis sëñ mbégte mu mag ci kanam Cheikhul Khadim ndax sëñ Baara sëñ maanaam nitu yàlla suy ñëw ci àddina day tànn ak njabootam nit yàlla ku mën ni doon xut bu samaan day tànn ay njaboot ci góor yàlla yi nga xam ne góor yàlla yi démb lañu woon ndax kenn ku nekk dina am fu mu la féete ci sab liggéey dina am lu mu la yanoon Cheikh Mouhamadou Bara nag fi mu féete woon sëriñ bi mooy yenal ko lépp loo xam ne tiis la wala balaa bu dem ci jaam yi boo demee ci xasit ak mu nawee bun yàlla maam Cheikh yaa ngi ko fay gis mu naan yàlla suñu borom lépp loo xam ne musiba la wala tiis la wala na ñëw ci sama jëmm ji seey ci man te jaam yi mucc foofu la féete woon sëriñ bi nga xam ne am na bis boo xam ne ci njaareem 1918 euh, am na grippe espagnole bu xewoon jàpp naa ni sëñ bi am na lu mu ca wax ni bu du woon Mouhamad Lamine Sam bu du woon Mouhamad Lamine Sam moom day bu fi dee bàyyi keneen kenn itam li mu fi li mu bàyyi du du des peste boobu mu ni grippe boobu su fi dee bàyyi kenn nit ñam fay bàyyi du des waaye mët Lamine Sam dox na suñu diggante moom foofu la féete woon sëriñ bi jëmm jooju nag moom la ñuy màggal incha allah ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru jumaadal uula ren incha allah muy dëppook benn fan ci weeru décembre. fi ñu koy defee wax naa ko Mbàkke Kajoor foofu la sëriñ bi yeesale sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ni sëriñ bi maanaam amul ab tariqa waxu ko bindu ko fenn waaye da doon yeesalaat sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon mbirum sëriñ bi lu bokkul ci sunna bokkul ci sëriñ bi. lu génn sunna génn mbéku génn mbirum sëriñ bi loolu la doon yeesal am ñu jaayante ak moom foofu ba ñibbi daaru salaam ñibbi mbàkke bawal ba mu sañ daaru salaam ba sañ Touba keroog ci bis bi la leen woo ñoom ñëpp ni leen li ngeen ruuj seen borom gan gi ñëw andi na leen ko kon bis boobu la ñuy fàttaliku du fàttaliku foofu ñu mbàkke kajoor nga xam ni fa la sëriñ bi yeesale fa la lépp soxli ko itam ndax Lat Joor 1886 foo fekk na foofu sëriñ bi euh, taawam soxna Faat Ja foofu la gane àddina ki maam Mor Anta Sali mujj gis ci njaboot muy sëñ Cheikh Absa maam sëñ Cheikh Diorel foofu la gënee àddina ndax sëñ ma maam Mor Anta Sali jotu ko gis ki mujj gis mooy sëñ Cheikh Absa foofu la gënee àddina bari na yu xew ci Mbàkke Kajoor goo xam ne fu mooy taal bu ñu taal ci yoonu murit foofu la soppe ko ki jëkk a jokk ci sëriñ bi itam foofu la faatoo fa ko rox muy sëñ Adama Gueye Cheikh Sidi Mokhtar foofu la gënee àddina sëñ Bara mii 1912 la ko sëñ Touba yebal foofu jaarle ko sëñ Amar Fall Mbàkke mu ñëw sañ sanc Mbàkke Kajoor foofu la génne àddina 1136 kon dëkk la boo xam ni dëkku diine la dëkku cosaan la waaye moo nekk université bi gën a na mag mais palais de justice la woon itam ndax euh, Mamor Anta Sali foofu la daan àtte la Lat kon foofu mooy fi nga xam ne fi la ñuy wootee màggal gi bés bi itam lii moo ko waral li ma wax ci ak njëlbéen itam màggal yi am na ñuy wax sax ni màggal yi dafa bari bari na naam waaye xew-xew yi nga xam ni euh, seen njariñ ca ëllëg bariwul amul solo ñoo gën a bari màggal yi xew-xew yi nga xam ni amul solo amul njariñ ëllëg moo gën a bari màggal yi te màggal yi ak ñaan la dañuy ñaanal ki nga xam ni moom la ñuy wooteel ndax yonente bi alayhi salaatu wax na ni nit su bàyyee ak njabootam nit su faatoo jëfam yépp dafay dagg ba mu des nga bàyyi njaboot gu lay ñaanal wala nga jëf li ñuy wax jaar jaariya def loo xam ni saa su nekk nit yi dañ koy jariñoo mu lay fekk fa nga nekk loolu mooy sababu ñuy màggal woote ko di ci ñaanal Cheikh Mouhamadou Bara di ci yëpp ñaareel ba mooy waxtaane ay jikko ndax jamono yàqu na yàqu goo xam ni suñu delloo ci mag ñi xool seeni jikkoo ak seen ngëm yàlla ak seenug dëgg ak seenu jub ñëpp roy leen lu bari mën naa defaru loolu moo ko waral li ma wax ci njëlbéen fii ndax Senghor wax na ni mas naa dégg mu wax li occidentaux yi dañ ko laaj ni ko yéen waa Afrique lu tax ngeen des ginnaaw ci wàllu koom-koom mun leen suñu kilifa yi diine yi liñ ñu jàngal mooy suñu ngor ak suñu diine moom lañ jiital ci am amu àddina suñ jàngee seen ngor ak seen diine ak seenu dëgg ak seen nangoo liggéey ak xool naka la ñuy jëflante yaakaar naa ne ku ci roy di nga sëjj ko dina baax ndax kii ñu fàttali bi Cheikh Mawlana Bara ab tailleur la woon da daan ñawal boppam ci loxoom ministre la woon da daan daaj daaj ay néeg ay ay fauteuil ay lépp la daan defar ci loxol boppam li ñu ci daan wane mooy nit dafa war a liggéey te njaboot gi bàyyi lépp ci loolu la ñu tënku kon yooyu yu mel noonu moo tax ñuy fàttaliku màggal di fàttaliku seen jëmm yi eh, ngir mën ko jariñoo mu amal ñu njariñ kon ñi ngi sant moo madame le gouverneur di ñaan yàlla suñu borom ñu àgg ci jàmm tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te noonu la ñu ko yaakaaree itam di la sant sa santuk bopp ndax sëñ Sidi bi may wax ni ma nañ la félicité parce que ku dugg ci gouverneur gouvernance bi gis ni nga ko réflexionné ak ni nga def li ala wax ci kilifa jigéen xam naa moo ci moo ci feeñ kon ñu ngi lay ñu ngi lay sant ci loolu di lay encouragé itam di la gërëm di la ñaanal yàlla dimbali la yàlla dëgëral la te lii rek mooy li am solo ndax mbir bu ñu la ko dénkee yàlla la waxoon yonent yi xusu ma ati ko bi xuwa bu ñu la joxee service danga koy téye da koy téye ak ak sa fukki loxo jox ko ak xam jox ko gëddaam ndax ñoom ñooy suñu roy waay kon ñu ngi sant bu baax di gërëm di wax ni wa axiru da'waana alhamdulillahi a alamin sëñ bi dégg nañu kàddu yi rafet na lool tey ñu ngi lay feddaliwaat sunu kóllëre ñun administration di ko feddali sëñ bi sëñ Moustapha Mbacke di ko fi ñaanal di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér comme na ma ko waxee woon rek ñuy ñaan yàlla ñu yegg ci bés ba ci jàmm ak salaam lépp li nga xam ne war na administration ñu def ko ah def nañu CRD déglu nañu préfet du département de Kébémer bi nga xam ne defal nañu résumé la nga xam ne jële na ko fële ca Mbàkke Kajoor chef de service yi itam jël nañ seen engagement te boo gisee doléance yi préfet daf ko def ci euh, ñetti anam benn bi muy wàllu santé santé nag yemul kese ci district sanitaire mais lépp li nga xam ne bu ñu ko defee rek dana ànd ak wér muy service d'hygiène muy muy muy muy wàllu euh, wàllub euh, euh, croix rouge yooyu yëpp wax dëgg yàlla wax nañ ko fi ba nga xam ne chef de service yi dellu si nañ ci ñi nga xam ne ñoom la concerné ba wax ban taxawaay lañ ci taxaw wax nañu aussi wàllub euh, sécurité muy la gendarmerie muy eaux forêt muy sapeur pompier ñoom ñëpp wax nañu ban taxawaay la ñuy am ca bës ba ba du am benn jafe-jafe beneen wàll bi nag mooy social bi nga xam ne doléance yu bëri fa lañ ko dugal ci wàllum euh, ndox mi wàllu assainissement ñu wax wàllum Sénélec euh, sécurité alimentaire Sonaged bi nga xam ne moo wa yore nettoiement bi yooyu yëpp dellu waat nañ si euh, te it euh, am ci yaakaar ni service yi lépp li nga xam ne war nañu war noo na leen rek danañ ko def jëloon nañ fi engagement yu mel noonu daaw te yaakaar naa ne ren dinañ ci gën a taxawaat ba nga xam ne duñ ci am benn jafe-jafe ci seen biir kàddu yi tënk nañ ci ñetti point benn bi mooy wàllu contournement bi contournement wu Mbàkke Kajoor wax nañu nañ ko defaraat loolu loolu doléance unité bu mag la yoonu euh, ngaay cilmaxa tamit dellu waat nañ si mu nekk loo xam ne it euh, lu leen yitteel la ci wàllum euh, san santé santé secondaire la ñu am ñu wax ñu ñu mënee ñu defal leen ko centre santé de référence nga xam ne seeni bëgg-bëgg dinañ ci mën a taxaw nu mu gën a gaawee ci wàllub sécurité dellu si ngeen ci ouverture brigade euh, de gendarmerie bi nga xam ne tabax nañ ko lu ëpp diirub euh, juróomi at ba léegi mënul la ubbi euh, loolu tamit yàgg ngeen ko fi jooy du loo xam ne lu bees la si ñun yàgg nañ ko dégg loolu wax ngeen ko kon nag mu nekk ñetti point benn bi santé la benn bi hydraulique la euh, euh, benn bi santé benn bi sécurité beneen bi nekk wàllub infrastructure yoo xam ne noté nañ ko danañu ko dox nag daan nañu bind wax ngeen ko dinañ ko yeggee suñuy kilifa waaye leneen li nga xam ne mën nañ ko ci def ca jéego danañ ko ci def incha allah ba nga xam ne jafe-jafe yooyu nguur gi dina ko jël en charge te yaakaar naa ne kilifa yi fi nekk bu ñu ko saytoo lépp lañ ci mën incha allah danañu ko def kon nag ci tënk loolu mooy li nga xam ne génn na fi ci ay doléance yu mag di leen wax ne dinañ assurer le suivi li fi engagement yi fi chef de service yi def yépp ñoom it maa ngi leen di ñaax donte xam naa ne ku ci nekk la nga wax la nga mën da nga ko def lu ci mënatu nekk rek dafa fekk du seen coobare waaye nañu fexe engagement yi ñu jël fii ñu topp ko benn par benn préfet du département de Kébémer ak le sous-préfet de l'arrondissement de Darou Mouhty ñoom it dinañ assurer le suivi en rapport avec le comité d'organisation ñoom ak comité d'organisation bi dinañu continuer di di di xool point par point lu ci nekk ndax def nañ ko lu ci sooxe ñu teel a rendre compte ñu ba ñu xool nan lañ koy saafarawee ñu nit duñu leen bàyyi noonu danañu bëgg di woote comme nañ ko daan defee daaw di wax ak Serigne Cheikh coro di wax ak le préfet de Kébémer ak euh, le sous-préfet de Darou Mouhty kon daal ñun administration suñu taxawaay ngi noonu pare nañ pour jàpp ci na raw nañ si daan jàppee kon nag di continuer di féddale suñu kóllëre ak euh, njabootul Mbàkke Kajoor